ba ñuy dem leeroon na leen duñ fa jëlee dara rien du tout dañ leen a euh, dàq ci processus boo xamante ne nii maanaam dafa jeex le 20 janvier ay waxu sama dossier fii sama dossier fële moo jeex xam nga boo leen déggee ñuy wax c'est quelque part comme si euh, euh, ñun dañuy cautionner niñ leen génnee par rapport ak parrainage bi demeewul noonu avant ñuy entamer processus parrainage bi lañ leen ne woon parrainage bi boo leen ci demee dina am ñoo xamante ni dinañu mer di jooy bu jeexee te c'est exactement ce qui s'est passé léegi nag yow naka ngay mën a ñëwee nga dugg ci benn match de football ba ñu football première euh, mi-temps ba ñu ne 15 minutes a ci des nga ne non non bii kat gis nañu ne équipe bële la faral léegi nañu téye match bi ñu xool nan lañu koy joué waate mais mënul ne parenage bi parrainage le président Macky Sall indiwu ko fi daf ko fi fekk. avant il était question pour les candidats indépendants ñu laaj leen dix mille signatures yoo xamante ni moo leen doon permettre ñu bokk ci élection yi bi parti poli euh, bi président Macky Sall ne daf koy changer ñu ne dañuy laaj zéro virgule pour cent euh, comment dire du fichier électoral dans un premier temps lañ waxoon ne loolu ana naka lañ koy vérifier. parce que question fondamentale bi mooy naka lañ koy vérifier de sorte que yow bu ñu la nee da ngaa perte amuloo parrainage yi. mu mën la leer ne effectivement da nga perte yow sa bopp gisal nga sa bopp que mënuloo jàll parce que lii parce que lële mais loolu moo yàgg nekk la question. Mhm. Bougane Gueye en deux mille dix-huit stade du bari fii la dem dajale mbooloom ne am na huit cent mille parrain woo ab huissier de justice huissier de justice bi ne mooy constaté ne Bougane am na huit cent mille parrain mhm. ba mu demee conseil constitutionnel dix-huit mille sax amu ko jëluñu ko ci ci huit cent mille. loolu c'était en 2019 donc ñoom war xamoon nañu ne parrainage bi baaxul donc balaa ñu cee dem dañoo waroon am ay garantie yu leer quant à vérification parenage boobu naka lay demee mais non seulement euh, euh, lijjantiwuñu loolu ñoom Guy Marius Sagna ñu fi demoon assemblée nationale pour wax waxu parrainage dañ leen a jël ñenn ñi ñu sànni leen jam ñaajo ñenn ñi ñu sànni leen fële ñoom dàmbooju ak autre mais gisuñu daanaka benn acteur politique boo xamante ni taxaw na mu xeex pour que parrainage bi au moins au moins ñu wax leen naka la ñuy vérifier de sorte que comme nu ma ko waxee sànq bu ñu la nee ñàkk nga nga mën a nangu ne ñàkk nga. Mm-hmm. léegi nag gannaaw comme defuñu loolu ah ba mu wees ba ñoom ñu accepter jouer le jeu dem dajale ji seen i parrain et cetera et cetera te seen euh, parrainage bi seen collective bi pour man da ngeen cee waroon a génne candidats yi nga xamante ni ay 7000 parrain la ñu déposé ak yooyu au moins sax. ñenn ñoo xamante ni dajale nañ des dizaines de milliers de parrains nga xamante ni quelque part mun nañoo wax ne seeni i doublon yooyu yooyu dañ leen a euh, léser mais koo xamante ni yaa xayti dañ lay wax ay quarante mille parrains nga dem dajale huit mille parrains yóbbu ko conseil constitutionnel mais kooku yow da ngaa yabaate te jàpp naa ne waroo euh, euh, créer collectif di da ngay kaas ba nit ñi di la ci fekki. kan la ci voilà. ah yow yaa jiite ci ci collectif bi nga boo xoolal rek am na ci. kan la ci kay j'aimerais bien savoir ah bëggoon naa xam kan la. Euh, mais man Birame aussi ci ci ci ñi nga xam ne wàllum euh, ay détenus ku mel ni Bassirou Diomaye Faye euh, des détenus yoo xam ne dañu leen a tuddee détenus politique. ñoom aussi loolu waxtaanee ko fa mooy jàpp nga ne satisfaction am na. loolu man yaakaar naa réponse bi si Bassirou jox leer na xam nga nit jàpp la détention moo war a nekk comment dire. l'exception maanaam bu ñu demee ba nga xamante nii yow dañ la téye ñu ne lan moo war a tax ñu téye la puisque sa procès ñëwagul ñu ne xëy na buñ la bàyyee mën ngaa rëcc ñu ne xëy na buñ la bàyyee am na ay témoins yoo xamante ne nii mën nga leen a korom mais tey Bassirou jomaay ci euh, comment dire euh, décision bi conseil constitutionnel joxe wane na ne moom am na garanti de représentativité léegi kon kooku lan lay def kaso loolu rek mënoon naa mën a tax. ñu ne dañ koy accorder une liberté provisoire pour mu mën a bokk ci élection yi et dans tous les cas code électoral bi lu mu wax leer na. Mhm. candidats yi dañu war a dem sur le même pied d'égalité. il n'est pas question. kenn nekk prison ñeneen ñi di wër Sénégal pour une même compétition loolu mënul jaar yoon. Mhm. Pape Sané ci côté boobu rek laataa ñuy jëli ji une euh, page euh, de pub euh, maam Birame mi ngi koy wax sànq yow yàgg nañ la dégg déjà sax ngay fustiger même lettre ba ko ba nga xam ne ca la démarré ba si rencontre bi bi nga déggee ñu ne la rencontre am na nga toog dégg ñu def compte rendu rencontre bi est-ce que finalement jàpp nga que ni ña demoon palais waroon nañ faa dem ak ñi nga xam ne aussi demuñu ndax dañuy regretter peut-être lu ñu lu tax demuñu. mais Issa déjà nga may ma par rapport à l'incarcération actuelle de Bassirou Bassirou Diomaye ouais. à l'état actuel des choses depuis bi ñu déclaré le 20 l'article LO 30 bu code électoral moo jox les pouvoirs à la cour d'appel de Dakar mu enjoint toutes les autorités toutes les autorités du Sénégal pour que tous les candidats puissent bénéficier de ce qu'on l'égalité mooy moom tey cour d'appel le président de la cour d'appel mën na saisir le doyen des juges ordonné ko une liberté d'office de kii nga xam ne mooy euh, Bassirou Diomaye c'est-à-dire c'est prévu par la loi il faut il faut pas aussi devant ñuy ut ay subterfuge c'est prévu par la loi suñ ko defee loi moo ko wax def moo ko wax suñ ko deful mooy que il ne respecte par la loi comme nañ koy defee d'habitude bon léegi par rapport nga ne ak lan Euh, ci côté euh, li nga xam ne moo di oppo non tu sais la li ñu jëlee ci rencontre bi non non ma ma ma ma de prime boor man dès le départ man j'ai dit ici keroog